ba yéri yoom ci liggéeyu maamam Seexul Xadim mu def ci lu kawe njort ñaan ko moom waaye noonu la ñu nuyoo bu baax ak di jaar xalifa Cheikh Abdoul Moustapha di Cheikh Abdoul Muxtar di kilifa pàkk bee ñëw toog di daawul xudus te ñaan borom bi guddal wala fanam wéral ay mbokk yi xam ngeen ñoo ngi dëgmal bis bu di bis bu màgg di bi nga xam ne ci la Cheikh Abdoul Moustapha jële woon juru ba njaareem indi ko fii di Touba. te muy eh, guddi gim dëkkaale ak boroomam subhaanahu wa taala xam nga ñu nekk ci wàccaay wi yàlla dogal nag eh, ñu di ko waajal ci niñ ko baaxoo defee ci ay waxtaan gën a xam xamle ak nit ñi dunduk eh, sëriñ bi waaye taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdou Moustapha taxee na ko ginnaawam ñu nekk fii nag ci yi di daarul xudduus toog ak sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane ñu war a seq tomb bu am solo muy mujjug sëriñ bi su ko defee xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk ñu seetaan euh, présenté wu su ko defee ñu door dugg moom ci laaj yi kon sëriñ Ahmadou bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala nabiyil karim. sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashabi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di jiital ci nuyoo bi kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu bu baax ak siyaar jawriñam di ko nekkal fii di sëriñ Ahmadul Muxtar leen ñaanal suñu boroom ak yàlla gàttandu leen ci liggéey bi ba li leen mag ñi bàyyee ñu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Ahmadou ci nuyoo bu matale boobu kon su ko defee mbokk yi nii seetaan ni leen ko waxee rek xam naa dañuy dugg directement ci eh, thème bi sëñ Ahmadou muy Serigne Touba ak mu jëm. ci wàccaayu màggalu Achirina Muharram ñu fas yéene waxtaane ak yéen lenn ci mujjug sëriñ bi mu doon ay bind yu am solo yu mat waxtaane yu taalibe yi war a jariñoo muy jataay yu am solo yoo xamante ni nii ci ak mujjëm la ko doon waxtaane ak taalibe yi te sëriñ bi du ab waxtaankat ab jàngalekat la jataay bi yëpp jataay yi jàngale la loolu nag daf nuy poussé waxtu wu nekk nu war di xañtu jataay te jéem a dégg message yi nga xamante ni nii moom lu jublu woon a jàllale ci biir jataay bi ndax jataay bi yëpp jataayu daara la rawatina nag jataay bi nga xamante ni ni moom la mujj a def ci ak mujjam ci weeru tamxarit ci wam sasin muy jataay bu am solo te bind yu bare bare bare bari yu am solo nekk ci biir yoo xamante ni ab taalibe bi mënu ko ñàkk xam ab jullit war na ko gëstu ba xam njàng la ma ca biir te jéem ca tàggat rawatina nag ñi nga xamante ni moom la ñuy tuddoo ñuy sant yàlla bu baax a baax itam ci tawféex ci nu suñ borom defal muy dëppale gi mu dëppale la amoon ci 1927 ak lii am ci 2020 mu mel ni ci vingt 1927 tamxarit wa benn panub ajjuma la woon loolu lan suñu boroom taw féexale ren jii tamxarit ji benn panub ajjuma la mu mel ni ki màggal gi kon talaata ci guddi la sëriñ bi fanaan si woon Tuuba bët seet bi àllarba talaata joj yi lanu suñu boroom wërsëgale te yàlla deful dara ci ak neen kon war na noo gën a raxas sunuy xol te doon lee waajal sunuy jëmm te yokk sunu pas ak sunu yitte ki gën a jariñoo waxtu yooyu yi nga xamante ne ni moom lañ dëgmal hmm. mu mel ni sëriñ bi ci ak mu jëm muy wam sa sin benn panu tamxarit ajjuma fukki fan ak juróom yu mujj yooyu daf cee bari ay dénkaane yoo xamante ne nii dénkaane na ko mu jëm ci njaboot ña teewoon ak ñi teewul nag ñëpp ci am wàll moo tax ñu di ko waxtaan bu caagin rek ñi koy dégg léegi jàpp ni ñawoon lay waxal waxi sëñ bi moom jamono ju nekk walaabal na ci képp koy tuddoo boo ci yemee rek jàmbat jàppal ni bi nga ci yemee gis ko la sa ndigal tàmbali yow ci jëfandikoo loolu mu doon ay tomb ak joxoñ yu leer xëy na doon wane itam ni mi ngi ci wàccaay doon te ñam doon waxal jéggiwuñu woon fam doon waxe lu dul ni gannaaw bu xew-xew bi xewee waaye fukki fan ak juróom yooyu yàlla dafa dogal hmm. sëñ Ahmadou Tasrif Sougou doomi sëñ Jéeri Waadaan fukki fan ak juróom yu mujj yooyu foofu sëñ bi nekk ñoo fi bokk na bari na itam yoroon xew yoo xam ne moom la ko sëñ bi doon yónni loolu itam dafay wéral rek li ñuy bëgg wax leneen li ci des ay mbind la ci jataayu mag ñu fekkee yaxal jataay ba mu mel ni sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ci xóot ba wam sa sëñ mu mel na ci mujj goog yi la sëriñ bi yónnee sëñ Ahmad Tasrif moom yi moom la wax ni ko wool ma ma sàmba moom nag sëñ na leen a sàllalu nooy kilifaam mm-hmm. waaye sëñ ma sàmba la doon woolu mm-hmm. ba ñëwee mu wax ko ni ko dama bëgg nga toog fii ma daan toog lu waaye indi te nga doy ko na la ko jox ñu leen itam na ñu woor Moussa ci rakki sëñ Maguey Jama doomi sëñ Adama Gueye ñëwee mu ñu ko wutal gaal def ko ca pénc ma ku ma sàmba doy te gaal gi doy la da ngay nga def ko ca gaal wax leen ni itam ne fa ma baqiya lil arsaqi fa li xayri li des ci wërsëg yi ñeel na ñeneen kon boobu mel na ni am na lu muy junj waaye mag ñi seenu cofeel ci moom seenu bëgg tax na am na yoo xamante ni duñ ko xalaat mukk ci jëmmam nee na boobu itam la ko yónni ni ko wool ma afiya muy sëñ afiya Mbàkke mu wax ko ni ko seen jàppangook bu julli jotee julli leen wax ko itam ni ko wool ma ma jëm silla mu woo ko mu ñëw mu ne ko seenu kaamil ngoog daari kaamil da daan wax ne dangeen ngeen a bëgg tool ca mboodaay bu ngeen may bayal seenu tool a ngoog muy daari kaamil jëm leen sase ñuy na ca mu mel ne yooyu yëpp ay ay junj la yoo xamante ne nii doon na ko junj ci mag ñi ci dégage ay responsabilité yu bari yoo xamante ni ñoom la ko bëgg a bàyyee sëñ Ahmad Tasrif nee wax na ko fii itam ni ko Ahmadu mu ni ko Mbàkke mu ni ko xanaa jaaxle woo mu ni ko ah, ci lan ndax ñoom buy sëñ bi wax ak ñoom duñ nangoo xam ndax li sëñ bi xam daa gën a wér ñoom lañu xam donte xam nañ ca dara yi dañ koy wan ak ñàkk xam sëñ bi ni ko moom lépp te sëñootoo cee jëfandikoo dara mboolem li ci sama biir kër gi moo kaasub sàngaraayam ci man waaye taxul booba rek seen xel ndaw màcc jëm ci dara ba ca bañ demee ba ca fukki fan ak juróom ya muy gaawoo sëñ bi julli jee takkusaan ba ñëw nga toog jataay waxtaan mu mel ni jataay boobu la mujj toog ci mbooloo kàddu yooyu itam la mujj yëkkati mu jëm ci mbooloo jataay ba sëñ Mat Lamin Jóob yaxal na ko ci kayit moom la tudde xut ba wam sa seen bari na itam mag ñu ko fekke waaye léppam am njàngale la léppam talibe bu ne war na ko yittewoo wax nee na am na mag mu xam ne dafa toog sëñ bi wax ba pare mu ni ko ah, waxtaan wi neex na sëñ bi ni ko waxtaanu ma damay jàngale loolu mooy xamal ni waxtu ci ne day jàngale day toog na jataay boo xam ne daa wax man mag ñi am ci kenn ku daanu subbi summi mbubbam jox ko sëñ bi taxañ ko ba mu doon mel ne dànk sëñ bi sànni ko ko ci kanam ni ko soxlawuma ko li ma bëgg ci yéen mooy ngeen jaamu ji yàlla te bàyyi jëw yooyu yëpp ay bind la yoo xamante ne ni dañ ko war a jariñoo te yooyu ci jataay yooyu la doon xewe bi mu toogee ci jataay bi sëñ Mat Lamin la wax mu jàng alxuraan tàmbale ci njëlbeenu bàqara jàng ci ay aaya sëñ bi wax ko ni ko taxawal li ci sëñ bi jublu woon mooy njëlbeenu bàqara day wax nu ab jullit di mel ma ni loolu ab seetu la boo xamante ni ni jullit bu ne war na caa seet boppam ci njëlbeenu ay yooyu yi ndax melokaan yooyu yi muy wax mi ngi ci yow wala nekkul ci yow ndax nit moo gën a xam boppam bari na lu nit ñi foog ci nit te fekk nekkul ci yow waaye loola nag ab seetu la la doon boo xam ne da caa war a seet sa bopp ngir mën a delloo si sa bopp ci fi nga war a ne mu dellu waxaat ko itam mu tàmbaliwaat jàng mu wax ko ni ko ab yéefar a ngoog mooy koo xamante ni nii gëmut yàlla wax ko itam melokaan yi nga xamante ni nii moo ci nekk ci moom loolu itam kenn ku ne war caa seet sa bopp ñoo ñi sëñ bi tuddee kaafiruuna nga nattale sa bopp ak ñoom jikko ya ci ñoom ba tax ñu tudde leen loolee ñu leen tudde yow yi ci nekk ci yow nga xam ne loolu mooy sa wopp mooy sa jàngoro nga jëm koo faj ginnaaw loola la ko jàngaloowaat mu jàng mu wax ko ni ko am naa fekk noonu lay mel yooyu yëpp ci juróom-ñaari aay yu jëkk yooyu yi ci sourate Baqara moo ko tënk ngir bañu dugg ci ay détails muy faram fàccee heure bi di dem ab joxoñ la ku ca dellu danga ca gis sa bopp bu baax a baax foofa itam la leen waxee ne leen bàyyi leen farfarloo farfarloo amut ci diine ndax lan mooy wane na ca position bi jullit ñi am ci gëm yonent bi ak gëm ña ko jiitu woon ci ay yonent ndax moo mujj ñëw kon am na ñu ko jiitu woon mooy daf ko doon wan rek da yàlla suñu borom da doon wan yonent bi ko nekko fi yow dong loolu da war a wax gaa yi mu àndal bañ xam ne moom dong nekku fi woon am na ñeneen ñu ko fi jiitu woon bi dañ ci dégg ni mboolem ñi nga xamante ne nii sëriñ bi dañoo jiitu woon sëriñ bi doon woote ci yàlla te wootin wa tege ci yoon sëriñ bi nangul na leen loolu cër bañ leen di jox ak fonk gañ leen di fonk wàññiwut dara ci cër bi ñu war a jox sëriñ bi ak fonkeel gi ñu ko war a fonk mu mel ni nag ci jataay boobu yi jàllee sëriñ bi fatu ndax da ne di wax ba julli jigee jot mu dem julli jigee ñëw takkusaan ba julli timis jot mu dem julli ji timis ñëw àggale jataay ba moo tax sëñ Mat Lamin bind ko xutba wam sësin loolu dangay wax bu ne war na ko am ba mu duggaatee ci biir nag mel na ni mooy mujj gi jataayam kon sëriñ bi mu mujj dénkaane ak taalibe yi ñu duggaatee jotuñu génnaat. génnaatu ci. moom. bi yegsee lu waaw loolu moom mooy amut benn jeexital boo xamante ne nii. feeñ na ci jëmmam. Mm-hmm. bu mag ñi teg toloo ni lii ak wéradi la gu ko gaar wala dara. Mm-hmm. ndax sëriñ bi moom kenn ku ne xam na ni. na mu déparé woon bi jaww bi yokku ci dara wàññiwu ci dara loolu ni nag ni suñ borom bindee doomu aadama ci ak màggat ak tële bi mu gënee jëm ak mag cawarte gam yoroon ak activités yi ni mu ko daan demee loolu xam nañ ni loolu mi ngi wàññi ko ndax même tubaab yi biñ koy jëlee jolof di ko indi njaareem loolu lañ wax dañ ni yaram waa ngi commencé ras te mel na ni gis bi taxatu koo neex te mel na ni sawaratut loolu li muy tegtale rek mooy mag gaa ngi dugg lool rek la doon tegtale mm-hmm. waaye wax nañ ni sëñ mat jigal ñëw na fa bis di ko jàmbat ci biir quinze jours yooyu rek mm-hmm. tàngoor wu ne ci yaramam waaye neen sëñ bi dañu ko dugalal fii sa loxo mm-hmm. sëñ mat jigal neen mu dugal loxoom ci ci biir mbubbum sëñ bi waaye nee na dënn bi mu ngi mel ni ab sébb lañ fi taal tàng jër biir biir yaram mais sëriñ bi ni ko li nekk fii moo sóor foofu moom ñetti weer la ko sëñ bi rawee waaye taxu doon itam ñu bàyyi xel rek ci ni kii li koy gaar noonu la. jotaayu tàggatoo bi mu duggee xëy na ay fan gisuñu ko ci ñoom ci ne sëriñ bi daf leen doon tàggu. Euh, déedéet amut ndax boobu mu duggee sëriñ si la moom moo daan def bu timis jotee moo koy taalal làmp bi ndax sëriñ bi. Mm-hmm. kenn ku ci nekk ak fonction yi nga xamante ni moom la daan joxal sëñ Matar Sylla nag rakki sëñ Madiba Sylla a bokk ci mag ñi nga xamante ni nii ca magi kër ga lañ bokk ñoo daan taalal sëñ bi làmp bi ci jataay bopp bi sëñ bi fatoo dem na bëgg a taalal sëñ bi bu yëngoo sëñ bi ana kooku mu ni ko mën a maxtaar mu ni ko demal bañ soxla ko mu dem nga xam ni keroog taalut mm-hmm. dimanche ñëw na waaye déggut dara lu yëngu kala yoona ne ci kees yi mu delluwaat ñoom it li jàpp rek mooy dañuy sëñ bi ci xalawaatam yooyu mu ne ndax daana tëju lopp loolu dem ba ca ngoon ci ngoonu dimanche gi mu ñëwaat jàpp ni sëñ bi dana yittewoo làmp beeg yooyu waaye déggu dara lu yëngu mu delluwaat ca altine ja nag bu mu xëy siwaatee ñëw na ci yoor yoor bi waaye dafa fekk altine ji mu xaw a taw taw boo xam ne suuf si xaw naa maase sëñ Ibnu Amar jóge ca daara ja eh, di rooti ca teen ba bi sëñ Ibnu jàllee laata muy wàññi ko waat sëñ bi jóge na ci néeg bi mu newoon dox ak tànkam dugg ci néeg bi nga xamante ne ni fa la dogalu suñu borom bi dikkee ci moom eh, looloo tax ñu jàpp ni lu mën a xew ci moom ginnaaw yor yorub altine lay doon te loolu itam dañuy xam ni donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi moo tax toujours ay mbiram dafay lëkkaloo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi dañ yor yorub altine la wàcc liggéey ñu denc ko talaata ci guddi ba seddi àllarba ñu gis ni itam néeg boobu yi nga xamante ne ni moom la moom la wàcce néeg ba Cheikh Ibrahima Fall la ko sëñ bi liggéey la woon Cheikh Ibrahima moo ko liggéeyal néeg ba néeg ba itam mag ñi waxoon nañ ni ay lal néew fa woon genn basangu romb jaan moo fa nekkoon goo xam ne sëñ bi da ko daan wéer ci jën wi ci digg bi saa yu soxla bu fa duggee lal ko toog ci def li muy def bu génn jotee mu génnaat loolu itam wax nañ ni moo leen wax ni leen ni suñ borom moo ma wax ni ma boo demaatee ba sonn na nga dem ci liggéey bu Ibra Fall liggéey nga noppaloo fa néeg bu Cheikh Ibra moo ko fa liggéeyloo laata muy tëju ci fanum yu mujj yooyu itam la woo ab Ablaay Xaar doomi Lat Joora ni ko demal ca Ibrahima Fall ni ko wet gi féeteek uh, jumaa ji naa ma fi yettal ab bunt waaye bunt bi nañ ko takk bu fa kenn jaar eh, ndekete bunt boobee ca lay jaar buy dem Touba dañ koy génne kër ga bunt boobu lañ ko jaarale keroog it lañ ko jëkk ubbi sëñ Matar nag bi mu ñëwee fekk situation bi demee noonu ci altine ji mu kala yoon a kala yoon a dara kiiwut xelam xaw naa ñaaw ndax nit itam bu ngeen yàggee xëy na dana am ay seetlu yooyu seetlu ci moom yoo xamante ni sa xel dana koy xalaat waaye saw làmmiñ du ko tudd du koy falan moo tax néeg bi sëñ bi dugg dañ kumpa na ko moom sax ci ab nettaleem mi ngi wax ni maa ngi tiit suñ borom mbugal ma ci yëddu gi ma doon yëddu sëñ bi mooy yërndu gi ko yërndu gis ko mu mu tëdd ci kaw romb jaan ga lal ceeg si jaade tëdd ci tëraayin wu jekk ndekete booba suñ borom ñëw na akub dogalam loolu lépp nag fekk fa Cheikh Mouhamadul Moustapha da koo fekkoon génn ndax euh, ca njëlbeenu tamxarit ga la ko sëñ bi waxoon ni ko boo demee ba tamxarit wi dëgër foo nee na nga ñëw seet si ma dama laa soxla loolu itam xëy na ab joxoñ la sëñ Modou itam ci fan yooyu nee na toog na ci kees ci kees yooyu noonu sëñ ma paate mbay doomi Modou Matar Mbaya mooy magi Baye Gallo seen sëñ Moussa jàdd fa nuyu ko waxtaan ak moom laaj ko kañ nga fi ñëw sëñ Modou ni ko aw naa fi am naa fi ay fan ni ko dama siiwut de waaye maa ngi fi ni ko siiw nag ab coono la waaye ñàkk siiw moom xéewal la waaye keroog daf ko wax ni ko Modou Matar ma paate man de dama dama dama xaw a amuk jaaxle mu ni ko lu jaaxal mu ni ko daal li ma jaaxal mooy suñ borom dama xamal ne ma waratuma am kilifa te seen waajaa ngi fi ne ko fi mu toll nii daal dama xaw a mel ni chef de gare bu taxaw ci ak gaar am gaar am saxaar guy costé ak guy bëgg a déqi koo xamante ni dafa ñëw bay bëgg a costé ak saxaar guy bëgg a départ mu ni ci lijjanti bi yu mel noonu daal ci la ci la toll fi doon nii waaye booba itam taxut moom it mu xam muy li muy wax booba la fa jóge nag dem Touba Kayel ci dëkk boo xamante ni mi ngi ko sancoon ci 1922 ci jamonoy sëriñ bi dimanche fa la ko fekk muy fukki fan ak juróom-ñaar ci tamxarit wi ni dimanche ci di tolloog loolu rek ni mu tolloog ci bis yi ba mu xëyee nag fi mu toog ci yéen bi mag ñi di waxtaan ak moom eh, la ni tekk waxatul dara mu yàgg mu jéggi piliyaan bi mu toog dem ca tokkoorut ñaam ba ca ginnaaw kër ga sëñ Mor jàddam mooy maam yi sëñ Mbàkke soon Lo moo jur waajuram wu jigéen moo ko fekk foofu mu ne ko ba Mor mu ne ko Mbàkke mu ni ko dama jaaxle mu ni ko loola mu ne ko foofu ma toogoon ci néeg bi di wax mm-hmm. na lu wax ak man du fen te lépp lu ma a wax dëgg mm-hmm. nee na ba ma amee ñeent fukki at du am ki dootuma am kilifa mm-hmm. te fii ma taxaw di wax ak yow maa ngi sama ñeent fukki at tegal ay bés ñu loolu de jaaxal na ma sëñ Mor ni ko ah loolu de doy na waa mu ni ko waa ah, baax na noonu dem daal di dellusiwaat ca mbooloo ma wax mbooloo mi ni leen léegi na ngeen dellu ci yitte yi te ngeen sax ci jëfe ndigal ak bàyyi tere te lépp lu ñu leen di tere ngeen fexe ba bu ci kenn seen damay dem wetti Touba waaye danaa fi siwaat boobu la daal di ñëw tuubaa ñu wax nañu boobu mi ngi dëkkee ci wetu kër sëñ Matar Bintaloo gi ci sura foofu la kër gi nekk sura man raa kër sëñ Moussa ku newoon foofu wax nañ ni sëñ Basiru moo fa defaroon néeg bu rafet boo xamante saa yu duggee ci kër gi faw nga visité ko ñenn ñi wax ni kër ga moo tuddoon sura sura man raa mooy ku ko gis bëgg loolu loolu lañ jubloon rek ndax taarub kër ga dugg na ci biir kër ga génn dem xusnu ma abin mooy li moom it bàyyi sëñ Njaay Anta nee na ma keroog bi muy ñëw maa ngi koy seen jàkkaarloog moom mu sol garam bu baxa ak kaal ak sàmba sembe ak dalli maraakis yu pour noonu la ma ko waxee sax ma laaj ko pour mun ma mooy yu mboq waaye moom it daa dugg ci biir kër ga rek dugg néegam tuuti daal di génnaat jaar na Nayde jaar Kellal laaj Amadou ma Xureje ñu ni ko daa dem tool Amadou ma Xureje moo jur waajur wu jigéenu Serigne Cheikh Fatma ñu ni ko ndax ñu wooye ko mu ni du ko jar bind ab leetar bàyyi fa. loolu lépp ci dimanche ji la jëm côté Ñaaxeen. wax na itam ni laata muy àgg ñaaxeen la waxoon ak moom ca Touba waxaat na ak moom ci biir oto bi ni ko wàññikul wuti njaareem waaye teewut mu jaar daarul Mawti fa la dajeeg sëñ Ablaye Diop lew na ànd ak moom dem daaru ñaaxeen ci këram gu nekk foofu goo xam maam Cheikh moo ko joxoon dëkk ba addiya muy ñaaxeen ci 1922 fa la ne waxoon ko ni ko tool àllarba bi dañ koo woote woon xanaa danga koy xaar kon suñ Moodu xamal ko ni ko duma ko mën a xaar ndax damaa ne ci yitte ginnaaw bi mu laaj ko sax ni ko loo jublu ci xaar gi mu ni ko ah, nit ñi bu yëgee ni yaa ngi fii tool bi day bari nit te day gaaw a jeex sëñ bi ni ko kon nañ ko woote ci altine ji ndax damaa ne ci yitte ñu takki fas wër tund wa woote ñu ñëw ca tool àllarba ba waaye daf leen waxoon ni leen itam ku ñëw ñu dawale ca tool ba bu kenn jaar si ci kër gi bi sëñ Modou dikkee xamal nga ko tool ba pare na dañ ko nañ seet foofa ker gu yaatu ñu daje fa maa ngi fay ñëw ba mu dikkee fa la leen fekk soññi leen sant leen moom itam wax nañu ci yitteem ju kawe amut benn liggéey boo xam ne mos na koo liggéeylu te du ni laata mbooloo may yewiku dem na fa ndax lool lépp dafa bokk ci loo ak sawarloo kii liggéey yooyu itam dafa bokkoon ci aw doxalinam ba mu fa jógee mu dellusiwaat ci kër ga loolu ci altine ji loolu ci altine la ba muy ñëw ci kër ga itam daa wax sëñ du ne ko mboolem mboolem ku ñëw kees gi ma nekk bu mu ci bu mu ci dugg. ñu ñëw nañ des ci penc ma. te lu waaye man ci jàngaar alxuraan ak jàng xasida ma ci nekk. Eh, nee na timis ci xawe maase. ma ñëw bëgg koo taalal làmp bi mun ma du ko jar. ma ne ko léegi kon ma delloo bunt bi nee ba tey mënu ma jaru ko. ñoo ma xam ne kilifa gu ne ci biirum néeg nanguwul ñu tàllam ba nanguwut ñu delloo bunt ba xaw na koo jaaxal ma boof ci bunt bi ci waneen bañ sàkket wi féete ne rek du ci digg bunt waaye daal mooy bunt bi boof ci noonu rek ñaaxeen fa la fanaaneet ci altina ji eh, nee na mu wekki der bi lal ci suuf commencé julli di sëlmal di julli di sëlmal mais ba julli lu ko soob mm. mais ma dégg muy jàng alxuraan mm. jàng ca kaw Eh, ba jàngal loolu lu ko soob hmm. fajar di jot génn na di doxantu noonu ci tokkoor bi bàgg dama ko ñëw mais hmm. eh, ma dem soññ jigéen ñi ñu defar ndekki li ngir bañ mu naaj hmm. bi ma ko waxee mun ma nañ ko jox Ablaye Diop lewoon ma jox ko sëñ Ablaye ñu seddale ko nee fi ma ko jox sëñ Ablaye ma koy wax ni ko sëñ bi tee ngaa wax ak moom mu des fi dallo ndax coono yi bari na te waa réew mi xamaguñ ni mi ngi fii mais mu ni gees ni ni lay Diop lu mu wax mm-hmm. mu ne ah, moom de da doon wax naan nga dallu mm-hmm. ndax coono yu bare ak yooyu mu ne ko nañ defar bagage yi nee mm-hmm. na keroog génn na foofu xaalis jox ko sëñ Mat Silla ni ko na ma ko joxal ay dara waaye na ko tenc ba ma dem mu door ko ko jox loolu itam danañ ci jànge sutura simi dund nga xamante ni kilifa yëpp mën nañ koo bàyyi xel ci booy dimbali nit nga dimbali ko te doo ko xañ personnalité loolu itam am na ci solo trop ci ci xeetu jëflante yi nga xamante ni moom la ñuy jëflante mm-hmm. bañ jëlee bagage yi nag foofu lañ jaare jaar gaat dem gaawaan talaata yi ba mu xëyee rek mm-hmm. la jaar noonu wuti gaawaan mm-hmm. booba maam Cheikh Anta mi ngi foofu moom foofu moo doon nekk waaye moo tax ñu naan maam Cheikh Anta borom gaawaan ñu bari nag dañuy defe ni gaawaan gi ci Mbàkke la waaye du gaawaan googu gaawaan gële la googee ci Kajoor fekk itam gouverneur général commandant cercle bu Jurbel et moo paal doon nomination bu bees ñëwoon seet si maam Cheikh Anta ndax moo di ñëw la tasanteeg maam Cheikh Anta ci étage bi di gunge commandant bi loolu itam dañ ciy jànge bu baax a baax ci ni jekk moom yàgg na ci yoon wi ba tax na lii feeñ ci yoon wi wërtu yóbbu sunu sunu dignité mm-hmm. wutum wërsëg mi mm-hmm. ndax ci jamono boobam maam Cheikh Anta nga xam ne dara amut àll bu xonq cooy mu tabax foofu étage mm-hmm. amit personnalité bu toll ni commandant nga xamante ni ni booba commandant moo gën a fort président de la république jamono yii di ko seet si personnalité boobu nga xam ne moom la yoon wi doon incarné ak am njariñ gi ñu amaloon njariñ nit ñi ba fu ñu nekk ñu di leen fu fekk loolu tam war nañ ko sàmm te sa ko gone yi mm-hmm. fekk mu di ko gunge euh, sëñ bi nuyoo moom mm-hmm. bi mu wëlbatikoo nag la koy laaj ni ko ndax nuyoo nga ak commandant bi parce que kooku nomination bu bees la amoon sëñ Modou ni ko déedéet mu ni ko ba ma xamoon ni nuyoowu leen mm-hmm. danaa leen nuyoo leen daal di wax sëñ Modou nag ni ko xanaa ngan ngi ma doon dikk te xaw a jafe xanaa tey jii la ko yàlla dogaloon pour bëgg mu yendu sëñ Moussa xamal ko ni ko duma mën a yendu damaa ci yitte ba Cheikh ni ko xanaa da yaakaar ne dama amutub añ. Mm. Eh, sëñ Modou Reku ni ko yow kay ku la gis xam ne am nga añ keroog jox na ko fa ak baa ak saakub cere. Mm. ni ko kon teraa nga jàngoo ginnaaw doo yendu saakub cere ba sëñ Mat Lamine Touré moo yoroon soxna su gaawaan. Mm. moom Seexul Xaddim moom la ko sëñ saa jox. daat fay jógee ñëw njaareem. lépp ci talaata ji la bi muy agsi njaareem booba tisbaar weesu na. te seen jotagut bi mu ñëwee itam ci kër boppam goog yi nga xam ne mooy kër sëñ Mbàkke Mouhamed gi ci Jurbel loolu kër sëñ Moussa woon foofu la sëñ bi wàcc nekk fa mag ñi yëg ni ñëw na ñoom itam ñu ñëw di ko siyaare si ak di ko nemmi ko sëñ Mat Lamin Jóob Dagana nag foofu la ko waxee ni ko déy ko ni ko sëñ bi moom mat naa nemmi ko ndax li mu def gën na koo def kon booba xëy na am na lu ñaaw njort mm. ci seen xel ci ne am na lu xew sëñ Matar la itam ñëwaat fa waxaat ko même wax boobu waaye sëñ Modou akuk dalam ak niteem loolu daf cay feeñ bu baax a baax loolu itam jamono war na koo jàngat bu baax a baax ndax léegi daanaka bu kilifa dogee rek balaa mat ñaari minute àdduna bépp yëg ko nga xamante ni toppatoo bañ ko waroon a toppatoo mm-hmm. sell gam waroon a sell ak bokk yi nga xamante ni ñoo ko waroon a taxaw léegi loolu yooyu secret dara ëmmatu ci loolu itam jafe-jafe la waaye nga xool suñ moo Modou nite gi ak itam dëgër gi ak gëm yàlla gi ak ñeme responsabilité bi ndax ku toll ni sëñ Tuubaa ak ni mu feese jamono ak fi mu toll ci ab yëngu ñu wax la lu mel noonu ci moom déy la ko nga mag ci ak njabootam war koo lijjanti nga ànd ak sa sago ba mbooloo mi nga toogal kenn xamu ko ci sa xaru kanam mm-hmm. ndax booba lu ne mënoon naa xew ba ko waxee lu ne mënoon naa xew waaye dara xewut ak nite rek moo moo xew ba jullee timis ba pare nag la woo mag ñi nga xamante ne ni ñoom la àndaloon muy sëñ Mat Lamine jóob Dagana sëñ Matar Sylla moom yi sëñ Cheikh Khary Dieng ak sëñ Ablaye Diop Léona ñii la àndal tab bi ci biir kër ga ñu woolu sëñ Cheikh Fatak ko moom lañ laaj ndax booba bokk na ci néeg yi gën a jege te kees gi mu nekk itam gi sëñ bi ne moom moo yor caabi mm-hmm. moo tax sëñ Modou laaj ci gan kees lañ ko mujj dégg. Mm-hmm. ñu ne keesuk sëñ Cheikh Fatou Tacko mu woo fa sëñ mm-hmm. mu ñëw ubbil leen mu laaj ko ci ban néeg lañ jàpp ni wala mujj yëngu mu joxañ néeg boobu yi nga xam ne fa fa lañ gisoon tànk yi dugg fa. taw bi mu taw itam moo laal bunt bi ba bunt bi xaw a gonfale ba mel ni daf koo tëj waaye fekk tëju ko. taw beeg moo ko gérer rek ba bunt bi xaw a xaw a xaw a dëgër moo tax bunt bi xaw a mel na lu force wu waaye sëñ bi tëraay bi mu tëdd tànk mi nga xaw a si ci bunt bi loolu bi mu dikkee sëñ Moussa ab yaram ak i tegginam ak xam sëñ bi ak taalibeem jiituwut daa wax sëñ Mat Lamin Jóob ni ko bismillah waaw la tax loola itam mooy sëñ mat la bit sëñ waa daf ko mayoon ni ko fu ma ne mën nga ma faa fekk looloo tax fu ma ne rek mën nga faa fekk ndax bokkoon na ci ñi gën a jege sëñ bi aminu sirri sax lañ koy wax nga xam ne bu secrétaire particulier doon am moom jamono yooyu moom la ci sëñ bi ndax bari na ay secret yu ko sëñ bi doon def loo moo tax mu ne ko bismillah xameen daana ko def sëñ bi yëngutu def na yëpp waaye dara xewut mu door a puus bunt bi sëñ Cheikh Khary Dieng yoroon fatafoor bi di leen niital bi gisee jëmmi sëriñ bi sànni fatafoor ba sëñ Moussa tudd yàlla ca kaw jël loxoom teg ci jëmmi sëñ bi waaye ne bokk na ci kàddu yi mu wax mooy ak a mën a muñ mhm. ak a di mhm. te yooyu tali bi ci loolu lañ waroon a daw jëkkante mooy nangoo muñ mhm. ba pare doon as gor loolu dafa ëmb bépp makaarimul axlaq mu ngi ci biir jikko yooyu waaye jikko yooyu moom boo ko xasee ñàkk moom daanaka mbaama la tane euh, loolu itam mat naa bàyyi xel ci yooyu moo tax sëñ bay jaxat di wax ni sayam wu rëy wañ daan daw musloo ko daw moom la la yan keroog la am responsabilité bu mag a mag ci ay ndénkaan yu ko sëñ bi doon dénk ndax la sëñ bi doon bëgg te mu jafe mu yasir rujooyi li tuubaaya waccal ilaahi maskani tuubaa abat yooyu moom jafe woon na mag ñi xamuñu woon dëgg dëgg nag bayit yooyu kañ lay fireeku ndax fanweeri at ak ñett ngi am yoo xamante ni sëñ bi tegu tànkam ci suufu Tuuba ah, te bayit yooyee warees na koo firi ba teg ci bët loola nag moo doon liggéeyu sëñ Moussa ci jël ay responsabilité am nag ci li ko sëñ bi dénkoon ci barab boobu yi mooy yasir rujuu li Tuuba ya ak wàccal ilaahi maskani Tuuba abat moo tax may wax ni ñu jàngatee ci dunduk sëñ Tuuba dana nu yokk pas-pas dana nu yokk ngëm dana nu yokk ay bind suñ diggante ak moom may ko orma ndax saayiram moo nu firil baatinam ndax yu mu doon wax yu yàgg yàgg yoo xamante ni nii xel mënu koo xalaat tey luñ doon doon eggoon nun teg nañ ci suñ bët loolee nag moo moo nu may gëm gu wér gu dëgg ca la ñu gisagut te àgguñu ca sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane macha allah dégg ngeen waxtaan wi muy mujjug sëriñ bi foofee ca njaareem euh, ci Sahir ba ci euh, di ko si Moustapha demee foofee ca njaareem ba nga xam ne responsabilité ci la ci moom nag xam naa kon foofu la ñuy taxawandi incha allah di la sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax ci jàpp euh, jàppandal gi. su ko defee mbokk yi ni seetaan ngeen wéy di ñu topp su ko defee diirub bi ngeen bi nga xam ne si Moustapha responsabilité ci la ci moom taxawaay bi mu taxaw ci ginnaaw sëriñ bi lépp incha allah dañ leen ko digtal wasalaamaaleykum